tey mbégte la si man ak contentement chaque fois di am ak rendez-vous jeunesse surtout le monde euh, sportif en particulier le donc tey damay am contentement à chaque fois di teewee activité yi comme ni ñu ko waxee rek ñu ngi pas dans un terrain donc ñun ay xaar ñu wooñu daj euh, di nawetaan di daj xam nañ ñi nga xamante ni ñoo koy organiser ak acteurs yi nga xamante ni ñoo si nekk difficulté ñuy rencontré donc tey ñun bu ñu ñëwee en tant acteur de développement

sur le plan éducatif di ngeen siy def si nawetaan ba tey gis nañ ni eh, les équipes jouent dans la fair play donc donc je pense que nous, avons changement donc nous, euh, le mouvement le dynamique de construction C'est dynamique de rupture mais aussi dynamique de cohésion sociale donc le plus important, c'est je pense que wax ñu si parce que dañuy def c' est c' est pas de la politique tey dañuy def pour participer au développement de cette ville là te tey sport am na foo xamante ni yàgg na fa surtout football rek tey gis nañ ni eh, Thiès euh, ñoo ngi Ligue 1 donc je pense que ni liggéey bi nga xamante ni moom ngeen liggéey tey ñëpp war nañ ci mën a jàpp te vraiment maa ngi saluer initiative bi nga xamante ni le collectif des clubs de Thiès jël nañ ko donc tey euh, c'est un honneur pour moi une fierté mu nekk Thiès parce que tey bu ñu tous les douze euh, douze clubs de Thiès nous booloo ben euh, fédérer seen i force mutualiser si seen pour que ñu mën aller àndandoo jàppale club yi donc loolu euh, vous avez mes remerciements vous ngi encourager di leen féliciter président Albourila ak ñi xam vous avez tout mon soutien donc euh, li ngeen fi def def me, def me président d'honneur, ça me va droit au cœur et je vous accompagnerai, soutenir les parce que lépp lu may def rek c'est pour l'intérêt collectif parce que Thiès moo ñu ñor Thiès la ñu bëgg mu nekk au premier rang Thiès la ñu bëgg muy jël numéro 1 donc ñu ngi ñaan suñu club bi nga xamante ni tey moo Ligue 1 nek le premier des clubs ak yeneen club yi nga xamante ni yëpp ñoom ñoo si topp ci championnat donc nak ñun euh xam leen ni. li ñu ñor rek mooy participer au rayonnement de Thiès Thiès ñu déggaat ko sur le plan footballistique gis nañ ni l'équipe nationale la fois passée mu ngi football gis nañ si ñaari jours yoo xamante ni ay Thiès waa donc tey vraiment loolu fierté la si ñun ndam la si donc te tey loolu lépp base bi moom lañ koy defaree te base bi mooy nawetaan donc tey ñun li nga xamante ni mën nañ ko dinañ ko chaque fois apporter pour euh, soutenir les équipes surtout équipe nawetaan yi nga xamante ni ñoo nekk zone bi nga xamante ni fa la ñuy yëngatu donc nag euh, yemuñu rek ci zone une A donc euh, ku ñu ku ñu sollicité wala nga bañ sollicité sax lu ñu mën a indi pour apporter suñu partition dinañ ko def parce que Thiès moo ñu ñor te tey je lance un appel à les autorités yi nga xam ne ñoo nekk Thiès football bi parce que euh, soxla parce que soxla nañ parce que tey ñëpp xamante football bi facteur de développement la ça fait partie de l'économie d'un pays donc nous ngi naan ñëpp ñu ñëw dans la fair du ma terminer te remercier wu ma euh, le président Diawara ndax liggéey bi nga xamante ni mu ngi koy def fii ci zone bi le président man damay identifier si moom parce que référence la si yaram si teeyam mais aussi si gëm-gëm bi nga xamante ni moom lay liggéey di remercier aussi euh, le président Ousmane Diop de l'ODCAV nee naa leen man euh, fépp laa bokk donc lépp lu ñu ma woo war dinaa si taxaw parce que vraiment sont des hommes de valeur gis nañ liggéey bi nga xamante ne ñu ngay def si nawetaani Thiès donc maa ngi di remercier ñëpp di remercier tous les présidents des ASC di leen wax ni sachez que vous avez tout mon soutien heure bu ñu ma waree mën a taxaw rek nañ si taxaw pour que Thiès mën a mën a rayonner sur le plan footballistique maa ngi remercier ñëpp gërëm ñëpp di aussi sama staff bi nga xamante ni ñoo ma accompagné ñoo ànd man le mouvement Siggi Jotna tey ñoo ma accompagné par rapport à cette initiative là bi nga xamante ni bu leen chaque année dañ koy def pour accompagner les ASC yi nga xamante euh, tous les Thiessois parce que man Thiès ñu gëm Thiès ñu am donc ñu ngi ñaan yàlla Euh, ambition yi da am ci Thiès ñu gën a yokk ñaari ñu dellu gannaaw day ñaan yàlla ambition yi gën a yokk ñeneen ñëw identifier suñu pour gën a jàpp pour Thiès mën a jëm kanam donc ñu leen di remercier ñëpp merci beaucoup. ci laa yëkkatee kaddu ci turu l'ensemble des collectifs du collectif des clubs de la ville de Thiès. pour d'abord remercier très sincèrement le président Ablaye Dieye parce que li mu def bëri na ñoo xamante ni ci ñoom lañ ko jëkkoon a yaakaar mais moom moo ko def moo tax d'abord bi biñ ko jox mais bu mu yaakaar ni dañ ko koo jox nii mais c'est parce que daf ko mérité dafa wone yoon moo tax ñu teg ko ci kanamu ñëpp ku ñëw ci ginnaawam nga war a topp parce que moom moo jiitu donc di ko remercier bu baax di ko xamal ni ko les clubs de la ville de Thiès ren depuis daaw dañu fas yéene boole seen doole ànd seeni seen i autorité pour jëli li nga xamante ni mooy trophée yi nekk ci Sénégal bi yëpp luñ ci mën dinañ ko def dinañ fexe ba sagal seeni autorité sagal seeni i population ba nga xamante ni kenn ku ci nekk di nga sawar dugal sa loxo ci seen activité parce que li ñuy bëgg nag mooy dootuñu toogati te duñu gis suñu autorité suñu wet dañoo soxla bu ñu toll di gis suñu autorité ñu leen di taxawal taxawaay bu baax di leen defar résultat ñu mën di siggi ci seen i kanamu yeneen i morom yeneen i autorité di la remercier encore une fois te di la xamal ni la ñun ñu ngi ci sawet di la jàppale loo xalaat ni ñun war nañ koo mën a taxawee ci sawet pare nañu pour taxawee ko sawet parce que yaa ko yaa ñu ko ji moo tax dinañ la ko delloo ba mu mat sëkk di la sant di la gërëm te di la ñaanal yàlla yaa xam li nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal. ñu leen di nuyu di leen gërëm di nuyu le président Abdoulaye Dièye nga xamante ni mooy président si gi jot na ñuy kontaan ci ànd bi ñu ànd ak yow te du tey ngay jàppale jeunesse su Thiès yëpp mais di jàppale Thiès waaye ñu ci am contentement bu rëy di la ñaanal. parce que lii daw na yaram nga ñëw onze ASC yi nekk ci sa commune nga yëkkati ay moyens ñoom ñëpp jox leen te du rek nga ko mës a def kon dañ lay ñaanoo yàlla lafal la cat di la remercier di ñaan autorité yi ñu suivre li ngay def parce que état joxu la ko kenn joxu la ko yow yaa ko liggéeyal sa bopp nga ñëw di jàppale population kon nag au nom de tous les présidents de la des ASC ñu ngi lay gërëm di la di la ñaanal parce que lii daw na suñu yaram depuis daaw ba tey yaa ngi koy te kenn fekku la donc di wax rek te ni na Thiès waa yëpp xool ni président si ki jot na di defal sport bi parce que tey soo xoolee suñu papa yaa ngi nii toog ñu leen di ñaanal ñoom it saison bu jàmm ba ñu mën a yéeg di ñaanal Seneps di ñaanal Ray di ñaanal ligue bi yëpp te Thiès lu Thiès lañu am ku defal Thiès rek ñu defal vraiment président kontaan nañ te da nga am zone bi ci sa côté parce que lu zone bi xewle yaa ngi ci yaa ngi ciy taxawoo ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp sunu président sunu xarit Abdoulaye président de Jotna le mouvement associatif le collectif des clubs de la ville de nga xam président nous des clubs de la ville de Thiès nag comme ni ñu ko doon waxee euh, man dafay tooñ sànq président Abdoulaye Dièye ma ne ko euh, bëri na tey ñoo xam ci nee nañ ma euh, final bi tey la ndax wala bu ñu defee demi-finale jarul ñu final parce que li war a am ci final bi yëpp tey am na ci demi-finale yi loolu rek dafa nekk loo xam ne lu ñu rafetlu la mais lu gëttulu parce que tey lii mooy troisième année consécutive bi nga am daaw amoon na ci stade bi ren amaat na fii euh, mais li ma ci gën a man mooy la première édition première édition bi dafa bàyyi ba élection jeex nga xamante ni benn politicien mënuloo ko jot dix jours après doo nga woote ñëw offrir à tous les ASC de la zone

du benn ASC bokk ci Soli C zone bokk ci Soli mais dafa jàpp ni moom da cee bokk te donc loo bokk loo xaar ko ci woo yow yaay ñëw donc tey jii nii gis nga encore lii mu am lii mu defal la ASC yi dafa ko encore continuer club de Thiès tey moom il n'est pas la première autorité bu mu seet mais mooy première autorité bu réagir donc tey dañ koy ñaanal moom ak ñi muy àndal ci mouvement bi ci lépp loo xamante ni yéeri nañu ko wala bëgg nañu ko yàlla dafa leen lu weer weesu seen jor li nga xamante ni am nañ ko yéene ci dëkk bi yal na leen yàlla may kattan bu ñu ko àggalee ànd ci toute la population de Thiès vraiment président ñu ngi lay remercier en tout cas au nom du associatif bi ñu bokk ñun ñëpp parce que club yi dafa ëmb ñëpp tey ASC boo ci gis rek club yaa ngi ci Euh, président Albouri tey xolam fees dafa fees moo tax mu jox suñu wax mais en tout cas ñu ngi leen di remercier ñëpp vraiment surtout vous avez fait pour Thiès Thiès amul sa fay dañ leen ñaanal rek yàgg nañu àndal ñëpp yal na leen yàlla may kattan gore